Le groupe G8 Media, DigiClick, agence de communication, Charoui ITV, la chaîne d'information, 44 Event la chaîne événementielle, www.charouiinfo.net, le site d'information. Abonnez-vous. Ah, presque deux du matin. kaa teg si ma bunt ma tëdd mënumaa tëdd ay ma ñëwaat fii toog ne tuuti sama yaay daal di jóg daal di jàpp préparé wu daal di jóg ma génn toog fee ci mbedd mi ay sept heures ñu fekkam foofu laaj ma ndax xale yi feeñu mais ah xale yi de feeñaguñu loo leen ci xam mais ah man de xamaguma ci dara après par la ay sept ba jàpp huit noonu daal laa gis ñuy daw di yuuxu di ñëw ma daal di jóg ne waa lu xew ñu naan fële ma ne fële fan fan la lu xew ñu ne xale yi dee nañ ma ne dee loolu daal laa ci am. Mhm. kenn ku góor ki. ñaataat la am. ay quatre ans et demi waaw. waaw ñoom yàgg nañoo dem foofu sama kër mag la. dañuy dem foofu di dem di ñëw di jaabante des fois sax bu ñu xëyee boo leen joxee ndékki dañ fi bàyyi ndékki nañu dañuy dem ndékki kër wax bu añ jotee ñu ñëw bu añ jotee ñu dellu boo nee tolli ay ñu ne déedéet awa ceebu ginaar lay togg ñu daal di dem man na sama doom ay 1 heure laa mujjee gisante ak moom parce que dafa xëy na ma yaay damay ndékki ma nekk ko xaar ki jëlee la mburu parce seen maam mooy jaay mburu ci cantine bi mu ne ma jëluma mburu de kër na boof laay ndékkee ma ne magam bi kaa jënd kër na boof kon ma nekk léegi man damay dem dëj ba mu ne ma pare damay dem kër awa ma ne ko waa nga sol sa la mu ko jox ma 100 francs ma jënd bisaab ma jox ko 100 francs sa raax gëj a gis ba tey waaw. waaw xale yi bu ñuy dem foofu ñëpp a leen xam bu njëkk bu naa dem dañ leen oññi waaye dañuy xam ne sama kër mag bi leen jëm moo tax du leen oññi parce que chaque jour dañuy jaabante foofu fii lañ xam foofu. duñ dem fenn xale yi. yéen ñaata temps ngeen toog yaa ngi ne si biir wax ay 11h nga ko ko a gis 11h ci suba ñaata jiir ngeen toog xam ne ne xale yi ba ñu demee ba tey ñëw waaw man sama doom presque ay 11h jàpp midi yooyu daal lan waxante fekk moon dem fii benn dëcc comme ñu dañuy jàppare bu ñu demee foofu rek ndax ñoom dañu daan yënd foofu bu añee pare la ñuy ñëw wala ay 5 ñu dem jëli leen ñu ñëw sama doom bi fekk foofu. nama ma yaay xalé yi kenn gisu mana ma nekk xale yan ma dañoo réer ma nekk réeruñu de kër awa ma tek kudd gi ma doon añee ma dem di dem tase sama mag mané ko ana xalé mo ne ana xalé mané ko ah loolu mën a nekk mo ne xalé sub bi ñëwee dañ togu ñu dañuy ñibbi dañ ne ma do dem parce que dem daw na ba fofu ñooñ ji ma ma ne ma bàyyi parce que xol sama doom ñu ne ma do ko xol loolu dalama wax lan moo njëkkoon nekk sa xalaat dégg nga nga xamoon ne xale yi ñoom réer nañu. ah am ci njort bu rafet rek am ci njort parce que boo demee ñu ñu ne xale ñu ngi si jàmm loolu rek ngay mën a sukkandiku loolu rek xam nga doo sa xel du ñaaw ci leen loo xamante ni lu indi ay ngaañ la sa xel du ko xalaat. moom rek nga déedéet mooy sama ñeenteel doom waaw. waaw mooy sama jaat waaw. Mm-hmm. Mana la meloon ak yow ah macha allah xale bi dafa taq masa metti na masa ñàkk doom dafa metti maa day feraat bu guddee maa beneen nag bi dañuy eh, làmba e làmba suñu mu ko ne papa bàyyi li ngay def mu naan ma damay xool ba xam la sama kaw lay fanaan ba asamaan set du dem man rek la xam bu génnee daa dugg fi néeg maama dama dem kër awa de temps en temps sax dafay dem ndax bugguma sori benn yoon dëgg yàlla xam ma bay bëgg a dee man rek la xam. tey lan ngeen di xaar ci autorité caaro yi. ah mbir mi daal ngoogu yàlla baax na. ngi noonu daal teg nañ daal lépp ci loxoy yàlla ump nañu waaye umpul yàlla suñu borom. bu dee nag nit a def yal na ko yàlla weer bu dee nag foofu la yàlla yemale seen dunda ñuy ñaan rek ci yàlla comme moo ñu ko joxoon waaw rek lañ ci xam métti na torop alors affaire bi ni ma ko yëgee gardien dépôt gaz bi dafa am ay gardien dafa am oto yu nga xam ne seen borom dañ koo ko mu di leen garder booru quatre heures et la ma fëgg quatre heures du matin ma jóg mu ne ma dafa am ñetti xale yu nekk ci oto bi pour man ay xale la yoo xam ne xëy na ay vagabond lañu rek ma ne ko bàyyi leen foofu bu leen sax toppatoo mais moom précisé wu ma xale yi ni ñuy demee dañu dee wala yooyu bi ma eggalee sama sama kurus laa dem ci moom mu yóbbu ma ma gis xale yi fekk am na sama benn dëkkandoo jaar na fi ma gis mu woo la brigade de Thiaroye informé leen. man tam moom gardien bi nan la def ba xam ne xale yaa ngi foofu ba ñëw wax la ko. waaw xam nga moom eh, yenn saa dafay ubbi oto di ci took ak yooyu di ci nekk xam naa bi mu ubbi oto bi nag la gis xale yi tëjaat leen foofu alors man tam bi ma demee ba def constat bi ma woo la brigade wax leen ko mu ne ma naa woo l'ICP eh, infirmier chef de post mu ñëw def constat

bay def ay annonce ci réseaux sociaux yi ak yooyu. Euh, ndax lii euh, nemmeeku ngeen ko mu nekk loo xam ne lu fréquent la wala c'est la première fois ngeen koy gis ci koñ bi. fii de c'est la première fois ah, c'est la première fois ñu gis ko fi effectivement. koñ bi euh, am na sécurité bu doy wala askan wi fi ne dafa am benn insécurité wala da ngeen fiy gis tout le temps ñoo xam ne xàmmee woon leen leen ci koñ bi. fii presque ñu fi dëkk ñëpp xamante nañu parce que ñëpp ci quartier bi lañ dëkk. ku fi nekk gan daal euh, repéré nañ loo parce que buñ la fi xamul rek xam nañ ne gan nga fi waaw te ñu ngi bàyyi xel tam ci yooyu ñu ngi bàyyi xel. Euh, jël nañ mbir yi yoon sax lañu ñu mën a wax jël na mbir yi euh, ndax am ngeen njortu nekk xale yi ñoom ci seen jëm bopp ñoo leen fa ñoo dugal foofu seen bopp wala dafa am lu leen fa dugal. ah man sama njortu bopp laay wax waxuma ne li ma wax looloo nekk. mais si sama gis-gis dama yaakaar ne xale yi dañ duggoon ci oto bi di fo oto bi tëju ñu génn mën yuuxu tam ba kenn dégg leen ba yàlla ñëw ak dogalam ci ñoom loolu daal mooy sama jugement waaye waxuma ne looloo am waaw parce que yoon a ngi fi la gendarmerie ñu ngi fi la les sapeurs ñu ngi fi ñoom seen kàddu moo gën a wér sama kàddu sukkandiku ci quelques éléments yoo xam ne ci commune bi la ñu ne euh, ci mairie bi li ñu xam ne rek mooy euh, ñoom liggéeyoon nañ pour oto yi jóge fi euh, ñu gis ne oto yi ñëwaat na fi ana ban taxawaay wala yan jéego ngeen ci fas yéene def ba oto yi nga xam ne moom fi gaare ñu mën ko fi jële ñoon jéego boobu laa commune ñoo koy def mais yàgg teyit gëm naa li dinañ ko def ndax ak événement bi ni mu demee dina gën a attirer seen attention Le groupe G8 Media, DigiClick, agence de communication, Charouy ITV, la chaîne d'information, 44 Event Pro, la chaîne événementielle, www.charoinfo.net, le site d'information. Abonnez-vous!